jataayu ngëneel di nuyu njaboot gi yëpp tàmbalee ko ci sëriñ Modou mi nga xam ne moom la ñuy jokkool jamono bu ne ba bi sëñ bi wàcce moo ma ko waxoon wax dëgg yàlla waxtu wu ne ñu ngi sàmm kóllëre googu nu sëriñ bi boole kon maa ngi jël nuyoo njaboot gi jaaree ko ci moom wax waxtu wu ne moom la ñuy jokkool sëriñ Hamidou noo ngi lay nuyu bu baax ak njaboot gi ngeen nekkal yépp di nuyu sëriñ Modou Mamoun Amar di ko ñaanal yàlla suñu borom gën ko yàggal te wéral ko di nuyu Baye Dame Gueye moomu nga xam ne bis bi ñu fi jëkkee ñëwee ci moom lañuy jaarale woon woote bi moom it muy sunu way jur waaye di suñu soppe sëriñ maam la noo ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay nit ku baax nga sëriñ maam Balla Gaye mi nit ku baax la dama ko natt ci yenn nattuwaay yu bari moo tax ma fonk ko nag lool mooy li gàllankoor nit yàlla du ko ci dimbale muy muy keñaan Euh, ndax moo ngi koy wax léegi ci daaru salaam ji damay ñëw ca jataay ba dama caa am mbég lool ndax kilifa gu tol noonu bu waxee ne dama sopp nit rek loolu borom waratuta toog sax di am lu muy xaar kon maa ngi lay sant bu baax te jataay bu waxtu wu nekk noonu rek ngay doxee te yow li nga nekk mooy li gën ndax xayrukum man taallama alqur'ana wa allama yonent bi alayhi salaam ne na ki gën ci yenn mooy ki jàngal xuraan di ko jàngale kon boo ci boolee yeneen jikko yu yuñ gërëm yi loolu lu rafet la ak baax la rek maa ngi nuyu ahlu xasaayid yi fi nekk yépp di leen jox seen wàccuwaay ñoom it di leen gërëmit ci jataay bi ni nga ko waxee léegi dafa am loo xam ne dafa am lu koy waral muy wóllëre wuy dox ci ab diggante ak jàppante yàlla tax mën naa bañ a doon ab gisee bu bari waaye man mag mu am ngërëm moom dama lay dama lay dama lay fonk sëñ Modou mi xam na li ma fonke woon sëñ Mor ci moom mi ma daan jokkool magum ngërëm ndax ndaw bu bëggee yegg lay fexee dajeeg mag moom ngërëm mag moom ngërëm moo du ti caaxaan yombut nag bëriwul ndax ngërëmul yàlla bu nekkee ci yow dana feeñ ci yu baree bari te gu baax gi newoon fii ku ne xamoon na amul ngërëmam moo tax bis bii bi nu ko sëñ moodu fàttalee ñu gën caa am yitte wax naa ko léegi ne ko jataay bi ma jaaroon kilifa mën naa ne sax sama kilifa la ay kilifa fa nekk waaye waxtu wañ waxante ba mu agsee te fekk liñ yoon dama daal di dakkal yitee loolu it dara waralu ko lu mooy boo daalee ci ab béréb di ko jéem a sàmmante doon ko ne doo ko mën a matale sax waaye nga di ko jéem rek jataay bii nag day jataay bu am solo muy jataayu sant nitu yàlla te sant doomu aadama wala bëgg nitu yàlla dañuy wax ne mooy tegtale bëgg yàlla ndax ku yàlla nëmmul nga texe du tàbbal ci sa xol nga bëgg nitu yàlla moo tax boroom xam-xam yi da wax ne bëgg nitu yàlla ndàmb la trésor la ci ndàmbi suñu boroom yi ndax ku yàlla nëmmul ci yow ak texe du tàbbal ci sa xol nga bëgg leen inna mahabbata awliyaa al axyaar kanzun azimun min kunuzillah isla yuhibbuhum ila man arada allah an te defe naa bu dee bëgg nit ku baax moom bëgg sëñ Modou Mamoun fa la yem ndax waxuma baax ga waaye ku ñu mbaa yàlla la alkurmaan yi moo waxoon ne kenn jaamulu yàlla lu toll ni bëgg nitu yàlla moo tax bëgg sopp nitu yàlla lu am solo la ngëneel ya ca nekk na mu toll ci ak rëy mu ne su ko xiyaas ndax defe naa suñu borom day wax ci xadisul xudsi ne sama wenn waliyu ku ko noonu rek déclaré naa la guerre man aadani waliyan faqad adantuhu bil harb kon fonk na ñoñam te sant it dafa bokk ci jaamu yi nga xam ne suñ boroom da koo da caa digee ndolleen gis nga Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne lay sant yàlla ci ay mbindam di ko sant ci jëmam wax na danaa ko sant sama xalima di ko sant sama jëm dafa dem ba egg ci wax ne lépp loo xam ne mooy njàmbat la soppi naa ko jënde ko cant duutuma jàmbat te moom booba suñ borom sax lay waxal ne duutuma jàmbat ay lor yu bàyyi ci yu jëm see ci man duutuma ko jàmbat te la indi loola boo demee ci irwa una dimbu Cheikh Mahamadou Lamine Diop adege ni ma nga cay nettali ne dafa am bis mu nekk ca Mayomba muy béréb bi mu gën a yàgg ci tukki bi ndax Libreville ak maa yooma juróomi at la fa def kon moom la gën a yàgg waaye nee na ba fa toogee ab diir nag dafa xëy bis rek di wax ci xel mi nga xam ne sëñ bi waxu ko ci làmmiñ wi sax waaye nee na dafa xalam ci xel mi ne fii de yàgg naa fi ndax juróomi at yi mu fi am waaye nee na bi mu ne yàgg naa fi li ko suñ boroom fayee mooy sotti jëmmam ay melantaan ba mu fees dell ndax xalam gi mu xalam ne yàgg naa fi boo demee ci xasida googu Abdoulaye Salimul Xanbali bind te jëme ko ci tukkib géej gi fa kam xurbatin allat li tafriju kurba andi na ci sa boobu ba netti ko ci ba wax ne nam lun ko misra qaabil joofi fi angzim nee na cu nee na jëmmi melentaan yooyu sax réyaay bi toll na ni cooji ganaar ngir rëy te loolu sëñ Sàmba yi nettali na ko nga xam ne ay ndegment la yoo xam ne bu la mattee day metti lool te yéeme mu sam jëmm jëmmi sëñ bi nag nee na bi mu tàmbalee di tuub li tax muy tuub nee na mooy xalam gi mu xalam ne yàgg na fi nee na mu mel ni daa gën a bari ma ne kon naa sant yàlla ba ma tàmbalee sant nag ñuy wàcc ba ba jeex takk ca la waxee ne kon nasaxtu bi shukri shikaayatan lahu fala ashku lahu durri wa durri afala léegi kon soppi naa lépp loo xam ne njàmbal la jënde ko cant sant nag goo xam ne ci làmmiñam lay nekk waaye di ko jëfe ci ay cëram di ko feeñal ci ay xalimaam di koo xam ne nag moom jëmmi Cheikhul Khadim ci boppam saa yoo tuddee lenn ci mbiram rek daf lay gën a yéem ci suñ borom damay wax ne boo bëggee xam tawxid ñuy jàngale tawxid dëgg di wax naan wéetal yàlla bëgg xam xudratul iraada goog suñ boroom xudratoom ak iraadatoom muy kàttanam ak nameelam boo ko bëggee xam dëgg da ngay jàngal mbirum Serigne Touba ca ngay gën a déggee inna Allaha ala kulli shay'in qadir ngay gën a déggee faalun lima yurid ci ngay gën a déggee yaxtassu bi rahmatihi man yasha ci ngay gën a déggee inna Allaha ala ngay déggee it faalun lima yurid bu baax dégg gi nga koy dégg ak yafalu ma yasha yaa ngi koy déggee ci jëmmi sëriñ bi ci boppam ni ko yàlla maye ba noppi natt ko ba noppi sàmm ko moo ko may lim ko may teg ko natt yi mu ko teg boole kook ñu ko ñu koy fitnaal ak di ko jëmee nattu ba noppi mu sàmm sàmmal ko boppam moo tax waxtu wu nekk da daan wax ne maa ngi yaakaar ne yàlla moo may aar moo may sàmm te moo may dimbale loo waxtaane ci moom noonu lay mel boo tuddee mbindam mu doy ak yéeme ndax defe naa ñi dàq gëstu ci adduna bi dàq xool gisee sa gul ku jege li gën a néew ci li sëñ Tuubaa bind te mbindam dafa boole ñaar muy qualité bi ak quantité bi mbind mi li muy bari bari ni mbind mi amee maanaata mat waxuma maanaam baatinum xasiida nga xam ne moom doy na ci dund gi ci ñëpp di dund loolu moom lu sayire la rek defe naa nit dana di jàng xasida mën naa bañ a xam sax lu benn baat di di firi ci xasida mu yoral ko teraanga yi àdduna ak alaxira nit di ko jàng ci di ko durus ci di ko sellal xasida yóbbu ko ba yeggale ko ci boroomam wala jëmmi xasida ci boppam ubbil ko ay yooni jëm ci yàlla ba jox ko cër boo xam ne mënu ko woon a amee fen fenn ndax sëñ Tuubaa nee na mboolem maqaame góor yàlla yi yàlla ma ko xëccal ci sama mbind mi jadabalil xott maqaamaat rijal wali tawa sayra rijal yi wal majaal <clears throat> kon loo ci xool rek danga ko cay da ko cay fekk mu mën koo matale ca loola te kenn mënu cee corriger virgule kenn mënu cee nat nangam defe naa lu borom xam-xam yi yoon wi bari bare yu dul borom xam-xam yoon wi maa xam li sëñ Tuubaa bind lépp amut maa am lépp it amut maa xam lépp amut kenn du ne li sëñ bi bind lépp am naa ko kenn du ne xam naa ko fi ne buñ jamonte woon fii ñun ñu ci baas bi léegi lu waay mokkal mokkal léegi gone gu ndaw wax bayit woo xamul xasida gum ne lu murit néew néew lu mu dajale léegi-léeg nga dem kër ab murit gis ko am bibliothèque gis ko am néegub xasida waaye dana dem ci néegub koo xam ne gaal la yor waaye dana fa gis xasida gum amul moom loolu li muy tegtale mooy bari mbindam waaye matuk mbindam ak béréb yi mu ko bindee circonstance yi ak ni mu ko bindee loola doyoon na yéemu ci Serigne Touba li mu defar ci àdduna yit nga xam ne bu defaroon ay bokki boppam ñu ne bokk gi sëñ Mbàkke moo rant seli rek a tax bu defaroon it ñi jàng ba géeju bari xam-xam ñu ne ah ñooñu kat mënuñoo ñàkk mel li ñu mel ndax dañoo jàng tege ca yoon wa waaye daa fekk ceddo yoo xam ne ñii ay bàkkaar gand na leen ñii ak tooñ gand na leen mu defar leen ba yemuñu ci set waaye ku taxoo ak ñoom set nga xam ne Cheikh Ibrahima Diop almachar li ci gën a yéeme mooy jëmmi Sëñ Tuubaa day fekk ku jàngul mu defar ko yar ko tàggat ko tombal ko ba muy pratiquer diineem ba boo ko fekkee ki jàng buy jëfe diineem ki jàngul di jëfe diineem doo ko mën a xàmmee fa kam jaahilin allamtahu wa hadaytahu fa saara mutia allah fi l amri wan nahyi loola defe naa ku ne gis na doomi cerdo yi dawoon wéeru si ci moom am na ci ñoo xam ne mujj nañ nekk ay suuf yanke nga xam ne bu guddi jotee dañ naan tem mu taxaw di naafile ba fajar te loola bi ñu ñëw ci sëñ bi loolu nekk nekkutoon ci ñoom waaye sëñ bee leen tàggat ba def leen noonu ñi di ay boroomi xam-xam it te du ñuy bokk te géeju wet gu nekk kenn ku nekk bi nga ñëwee ci moom la nga ko jëkk yëgal mooy sama bëgg sama càkkutéef mooy ngërëmal yàlla bokki boppam it kenn ku nekk mu sedd la cër boo xam ne koo ca waxtaanee da ngay defe ne li sëñ Tuubaa yoroon ci kooku képp la yem fi ne Cheikh Sidiyel Muxtaar maam Cheikh Anta boo ko waxtaanee danga naan lu sëñ Tuubaa yoroon ci ngëneel ak baax ak tedd nga moom la ko jox ci ngay xamee ne sëriñ bi ci boppam li muy wax ne làmboo dund goo xam ne dee su ko gis ci kenn ku dul man xustu xayaatan laa tura li xayri muajizatan baana li usnil xayri loolu moom ku ne mën na ko jànge nu ne des na ci sa këlkinu bopp ak sa xalaatu bopp làmboo naa dund goo xam ne kenn du ko gis ci kenn ku dul man mu nekk muajiza nag di miracle ci yonente bi alayhi salatu salaam kon li ma juboo lal jubloo laltaay mooy boo ne maa ngi waxtaane maam Cheikh Anta Gaawaan kon ki ki kii dégg li ngay wax nga ne waxtaan naa ci maam Cheikh waxtaan ci Daaru Salaam wax ci sëñ Modou Mamoun kii dégg kon dana xam ne jël nga lenn ci biir may sëñ Tuubaa waxtaane ko xam nga réew mi nag réew mu naqaree waxtaane la léegi moo tax yambar yëpp dellu nañ ginnaaw léegi la nga dégg ko ne sëñ nangam sëñ Tuubaa bind ko waaye li sëñ Tuubaa bind bari na boo wërloo woon fii fu sëñ Tuubaa bind bu Cheikh Rafal julli wala ko nit a génne dana dana dugg fu ne fu sëñ bi bind Ibrahima Fall bàyyil julli bul julli fu ko sëñ bind te Ibrahima Fall du julli du woor te boo julli du woor di nga ko dem sawar a teg xam nga looloo gën a doy waar boo boolee julleeg woor ba noppi diingat ko moom moom mi julliwul wóor yow nga dem sawara kon kay loolu man mbir na mooy la sëñ Ahmadou Fa Jamañ a waxoon rek keroog bi sëñ Modou Khary Niang feeñee doomam mu yónnee gànnaar ci sëñ Touba 1904 na ko na na bi muy yónnee ci sëñ bi na ko gan am na fi na ko wutalu tur way julu sëñ Modou daa jëlub dërëm joxaale ko ndaw lay dem na ko sëñ Touba ab téeréem ëpp na ma waaye na bindal sama doom ji ab téere ba mu yeggee sëñ Touba daa bind gan googu def naa ko mbigum yàlla ak rasulullah loolu la bind rek jox ko ba mu ñëwee sëñ Amadou faa jamaneng daal naa dindi mbind mi ginnaaw dafa amoon ku mu am mu dem mu ne bu fekkee ne ab aaya la wala turu yàlla ma jël ko di ko jëfandikoo ba mu ubbee kayit wa da caa fekk sëñ Tuubaa bind ci rek bismillahi rahmaani rahim gan ngoogu def naa ko mbigum yàlla ak rasulullah mu ne lii de moom du dëgg doole la lii du dëgg doole la ndax bindu dara def naa ko mbigum yàlla ak loolu sëriñ bi ci boppam dafa def lu kenn xamut wax li kenn xamut man lu kenn mënut loolu lu mat di bàyyi xel la ci mbiram looloo tax mu sañ may nit cër bu yaatu maam Cheikh ci la bokk maam Cheikh day boroom tawféex ba noppi di boroom xaas bi ci jëkk bërki démb maa ngi dajeeg sëñ Axma Mbakke moom sëñ Moor Gaawaan sëñ Axma yaakaar naa am nañu gis nitaal yi sëñ Axma nee naa ko sëriñ bu mel ni yow nag lu jafe la xam naa gaa yi bari nañ waaye yow mii moom ku mel ni yow bëriwut moom hmm? yii li ma dégg mu wax ko keroog ñu bari ngeen wuñ ko wax bëgg gis sëñ Tuubaa ak doyloo geeg nangam dafa doon nettali keroog bi ma ñëwee mooy nettali histoire maam Anta Ndiaye ak maam Cheikh Anta Gaawaan ak sëñ Mor Anta Sali nga xam ne moom moo ma waxal boppam may dégg li tax maam Cheikh am xaas sëñ mbakki Mor Anta xut bu la xawsu la sëñ Mor Anta ba noppi di géeju xam-xam goo xam ne ñu bari jàng ci moom ki njëkk way sëñ Touba di sëñ Mamar Kan dingaraay nga xam ne bi muy tagg sëñ Touba fukki at la ak ñett ca biir way bi mu doon way sëñ Touba bi mu ci indi sëñ Mor Anta dana mooy ki nga xam ne baayam géeju xam-xam la di naanukaay hada la ahmada bamba kaana walidahu bahrul ulumi namiril ma i mawruda sëñ Mor moomu nag bi mu toll tollee ci génn àdduna dafa woolu Serigne Touba noonu la ma ko sëñ Ahmad waxe mu ñëw mu ne ko Ahmadu dama bëggoon ñu waxtaan daan na ko ndax fii maa yow kenn keneen a ngi fi mu ne ko nun rek noo fi ne fekk soxna Anta Ndiaye ngi waaye gis sëñ bi ni mu mandoo néew ko maa yow rek a fi ne dana ko nun nun noo fi ne noo fi ne xam nga noo noo fi ne ji kon soxna soxna Anta ngi yëddu ci bi ngi déglu wax ji kon bokk na ci jataay bi te sëñ bi bugg ne ko nun ñaari rek fi nekk sëñ bi ne ko noo fi ne mu dégg sëñ moo seli ni mu doone xut bu nekk xawsu nekk aalim nekk wali mu dégg ko muy battale boppam sëñ Tuubaa fa ma jëm ñaari gaay yi laaj ci bàmmeel ngi mi wuma bàmmeel ndax ñoom sama ruugi bi wàccee bëgg naa ku ma yóbbu deqale ñii sant Mbàkke nga bokk ak ñoom bëgg naa kenn bañ a sonn sëriñ bi assimil koy responsabilité na ko ñi ci saa yu sa ruugi wàccee dana mel ni koo xam ne dafa jóge ci taatu ndaa rek tàbbi ci ak dex lii nga ma dénk ci bokk yi nag mbirum yàlla lañ yor ku ca nangoo jaayante joxe ko lii nga bëgg ci moom dana am mooy kon jébbuloo ko yi tax a jot ñoo bokk nanga may kese rek du ca a jot mu leeral ko lool bi soxna Anta déggee wax jii nag mu xam ne sëñ Moor mii mu xam ak ki mu doon ki muy batale boppam kooku du doom yi bàyyi du moroom moo tax soxna Anta Njaay teel a jëli maam Cheikh Anta moom na ko Cheikh Sidi Mokhtar kii du mbokk du doomi bàyyi du mag jox ko sa bopp moo tax ku sant Mbakke moo la jëkk jox boppam Serigne Touba te loolu sëñ bi confirmé waat na ko bi sëñ Modou Lo Dagana demee Gabon fekki fa Serigne Touba mu laajal ko boppam ana Cheikh mu ne ko ma nga fa mu ne ko Cheikh de gërëm naa ko moom a jëkk topp samay bokk muy Cheikh kon loolu doyoon na feex ci teel a joxe boppam ba ca topp mooy mu bëgg Serigne Touba ba fu ñu ko mas yóbbu. mu jóge fa ngir ñëw ci sëriñ bi nga xam ne lu ne lañ ko ca daan wax waaye mu takkook sëriñ bi ba bis sëñ bi sëq ti téye ci boppu Cheikh Anta na ko Cheikh mu ne ko Mbacke mu ne ko yàlla jox na ma lépp waaye doo leen sooy li ngeen di wut dangeen ko am bokkaat na ci tawféexam dëkk bi sëñ bi jëkk a sanc sëñ samatum sañ yi bu nee na ma bu dee dëkk daaru salaam la waaye bu dee kër bari la bari foofu sëñ El Hadj Ba dëkkoon sëñ samatum sañ yi bu nee kër gi sëñ Tuubaa jëkk am muy kër gu moomal boppam foofu lu bari bu dee dëkk nag Daaru Salaam deses la ko sanc cent 1304 mu sañc ko ñaari at lu ne fekk ko ca dëkk ba nga xam ne boo demee ci doxaawul kabir sëñ ne daaru salaam ak Touba li tax ñu gënal ma ci dëkk yëpp seetlug yéene li ma ko sanc dama ko sanc ngir jëm yàlla képp du sàmm du yaxantu du jaay du du bay daal yàllaa ma ko tànnali dëkk boobee Serigne Touba moo jël dëkk ba may ko maam Cheikh Anta Gaawaan muy Daaru Salaam kon ay tawfiixi maam Cheikh Anta day day tàmbali di feeñ yoon wit moo ci jëkk Cheikh ndax ba muy Cheikh di am juróom-ñeent fukki donga ak juróom-ñeent ñaar fukki atam matut Serigne bi ne ko xoolal ma donga yi mu wax ko ni mu toll mu ne ko jëlal dëkk beeg donga yi may naa la ko kon teel na koo jox barke teel koo seexal loola doyoon na feex ci maam Cheikh Gaawaan sëriñ bi bi mu sancee Touba ba dem ci géej gi sëñ Modou Lo Dagana ko fa jëkk a fekk ci mbokk mu di taalibe waaye bu dee ci mbokk maam Cheikh Anta Gaawaan ko fekk ca géej gi foofu it yeneen tawféex feeñ ci ndax sëñ bi ci boppam bi maam Cheikh Gaawaan ñëwee sëñ bee na ko rasulullahi yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne ma seex a ngi ñëw nga xam ne dikkug maam Cheikh Gaawaan nee na yonent beeg koox daan na ko lal bii alayhi salaatu salaam moo ci toogoon ko ca boo ko bëggee gis ma won la ko waaye da gën a yéeme waat ko Cheikh yonent bi nee na yaa yor sama sayir moom mu yor sama bati loolu kon yeneen cër la yoo xam ne ñeel na maam Cheikh Gaawaan sëñ bi ko jox xasida yi bindoon ci géej géej ca jamono booba yi nga xam ne mën nga ne xasida yi njëkk jëkk taalif ci yéen jëkk a ci yoon wi maam Cheikh Anta Gaawaan sëriñ bi jox ko ko mu indaale indaale téere yooyu loola bi sëñ bi jógee ci géej gi yamu ca sëñ bi moo ko yóbbante waale woon jox ko ndigalul neel cerno na sañ ci tagg guy tàggoo muy daarul manaan fii gaaraasu Dakar bi nekk fii daaru manaan gi nekk guy tàggoo la la tuddoon sëñ bee ko wax ne ko moo nattulu néegam yi fa mu toll ak na mel ci buum jox ko maam Cheikh Anta Gaawaan na ko joxal ma ko cerno ne ko na ma sancal guy tàggoo te tudde ko daarul banaan loolu kon meneen mbir la ci moom sëñ bi ne ci géej gi bay ñibbi si 11 novembre 1902 ñëpp nekkaat fi ñu gàttandu ko ci poor bii mu woolool boppam maam Cheikh Anta Gaawaan nga xam ne bi bato bi ne sëmm ba kenn ku ne di taxaw di xaar capitaine bi bi wàcc sëñ bee ne ko wal ma Cheikh mu woolu maam Cheikh Gaawaan sëñ bi door a jóge ci géej gi wàccagut mu ne ko Cheikh mu ne ko Mbakke mu ne ko dem naa ba ñëw topp leen sama mbóor yàlla bég na yonent bi bég na da ngeen bég kon loolay jagleeg Cheikh Sidi Muxtaar la maam Cheikh Anta Gaawaan mu jaay lépp lu mu bokk ak Serigne Touba wane ak taalibe te mooy jariñe dikkal na sëñ bi bis naan ko ñaas ma maam Cheikh Gaawaan ñëw na ne sëñ Touba ñaas ma may sa bambara sëf ma may sa loolee jaay ma may sa jaam lu nuy wàccee jëmm rek maam Cheikh Anta Gaawaan wàccee na ko ci kanam sëñ Touba nga day dikk na ko teeg maa ñaas teeg maa sëf li baaxoo suuf xam nga li doon may sa loola teeg maa jaay may sa jaam lu ne wax na ko sëriñ Tuba ba mujj bu ko sëriñ Tuba masaa seen muy ñëw danaan wa maa tawfiiqi illa billah bu leen ma xool ci seex ku ma ci xool mere ma ngir melokaan wu rëy woowu ko yàlla jagleeloon maam Cheikh sacrifice léppam ci lislaam ak ci yoonu murit ak ci bëgg-bëggu sëriñ Touba alal yi maam Cheikh Anta Gaar mooy yëfi Serigne bi mu jëf ci réew mi loo xam ne waxtu woon nañu war ko man di fàttaliku ak waxtaane nee naa léegi-léegi ñuy waxtaane démb ci télé yeeg rajo yi diw jam na diw diw daanu na ci xur sàngam diw fas wa diri na ko baax na de ndax loo ca mën a jublu rek gannaaw daanoo ca mujj mën naa baax ndax moo tax ne daw waaye defe naa ki dundal réew mi jamono jafe fi ne cinq tonnes yi ceeb wala dix tonnes yi ceeb képp ku ko masa wut wala nga jël ko sëriñ Touba nga xam ne du denc dara lu sëriñ bi bëgg rek moo nekk ay ak jëfam ak doxineen doonoon ak borom wilaayatu gu wér nga xam ne ñi nit yàlla ñi bari nañu seere wilaaya ak maam Cheikh Anta Gaawaan nga xam ne sañ-sañ baag si luise gaag jege yooyu lépp daqantiwul ak nag am cërub yàlla bi mu am wilaaya gu wóor wóor koo xam ne am na ko am taxawaay boo xam ne it doyaat na jëmmi sëriñ bi ci boppam sedd ko aali boppam ba tax mu am cër bu rëy ci tukki bi sëñ Tuubaa tukki woon mu am ci wàllu boppam boo xam ne kenn fekk ko ca muy maam Cheikh Anta Gaawaan loola it yu mu doon la sëriñ Tuubaa ci mbir yu bari yu daje ci moom waaye mu doon doonoon murid saadix murid saadix tur la woo xam ne wu bari turandoo la te néewi jëm murid saadix fi ne sama classe yi yëpp daanaka mën nañoo waxtaan ak murit fi ne moo tax nun nu gën a ne ci danse bi nun ñi di waxtaan moo koy wax yi léegi-léegi màggalu Tuubaa ñu ma ne xoola waxtaankat yi fi ne ñu bari dara duñ ko am ndax màggal gi day ñëw ñu topp plateau yi màggalal sëñ Tuubaa leen def nii la sëñ da màggal kon yi ñuy joxe ci màggal gi doo am xéewal yi màggal gi yàllay fay topp plateau yi di soññee rek te jënd nag boo tax bu ñi niy fay nit ñi doo ci bokk looy am màggal leen màggalu sëñ Tuubaa gi lu jàngale ko ba noppi ba noppi nag di wëri dal rek foo dem ñu dalal la te doo màggal léegi bu bu ñuy jox kay ñi ñu financé la ñuy jox waaye wax dëgg yàlla moo tax dama koy wax toujours Touba bu ma nekkee bu jub si ma ne arrêté leen affaire yi topp plateau yi rek te doo finance hmm? safar safar gi fu ne neex fu ne dara génn te doo jëndu bëy moo tax koo ci seen plateau bi mu defee woon daaw mbub mi mu yoroon lay fóotaat delloosi ko fa ndax du du ah oh, wax na nit ñi màggale mais màggalut murid moo tax murid saadix it noonu la bëree maam Cheikh Anta murid saadix la murid saadix ñeenti tànk la dox fii ma xab mahabbati cheikh abad dëggal ci bëgg sëñ bi defe naa kii ñëw naan ñaas ma jaay ma sëf ma ak bëgg ma ne su ko weesu ki sëñ Tuubaa di dox ay tànkam waral taqob lay muy bërëngu ngir moom ay yéeréem tooy tànki sëñ Tuubaa bañ a tooy fii rek bëgg mën a yem ba ca topp mooy jëfe ndigal mooy ñaareelu tomb ak murid saadix muy imsaalu amali ay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 bu sëñ bi waxee nga ne daa waroon a noppi sëñ bi noppi nga ne daa war a wax ndax moom wax daal la war a def ndax sëñ jiw mi ko fi jiitoon mag ko daana wax kon daa war a wax te yooyu yëpp day yàqu murit maam Cheikh na lu sëñ bi ma sa joxoñ ne loolu la salabul ixtiyaar bàyyee ko sa moo tax alal yi maam Cheikh Gaawaan nekk alali sëriñ bi nga xam ne léppam sëriñ Tuubaa la ko jeexal te loolu day yooyu ba léegi ci Daaru Salaam defe naa kenn ku ne mën na am na seetlu joxe million joxe almet fukki million ñeent fukki million téeméeri million ba egg ci ñett téeméeri million ak nangam defe naa jëm mi ndigal loolu ku ne xam na ko ci Daaru Salaam te addiyee dafa bokk ci li tax ak murit mën a dund ñii kaas ñëpp naan ñi jox sëriñ si ñi jox xaalis yeeg nangam ak nangam moo tax tey danaa ñi doon kaas loolu moom jërëjëf sëñ Mbàkke yu fay ñi doon génn naan sëriñ yi ngeen di jox xaalis ak ñuy liggéey ngeen di kii far xam ngeen ne histoire yaatu na de ñii di caw nii ñëpp ku ci sa waa kër di dajal wax mooy ñii gudd si kii ñoom ñii di contre que contexte kun ci saraxut de si pétrole doo am ko la jox mille waaye addiye un milliard ñeenti wëlis bu ne ñaar téeméeri million ak juróom fukk ñu jox la ko ba noppi teg ci na jox naa la sama bopp dool la ci yëmul def bu ma mënoon a def na maam Cheikh Anta Gaawaan defoon laay def ren de sama bopp sëñ bi loolu mooy yoon wi loolu ndam la ndamul lislaam la lu yëkkati ko te kii ñu jox ndam lii muy Cheikhul Khadim jox ko ko tey 1895 yàggul ba muy tàbbi ci ndakaaru gii alxemes sama jooj yi ci ay xottu bi léeg-léeg ki ràbb la taxaw ay tànkam di riixe nee na mënta sujjóot ngir ay tartar bi tànk yi riixe yàlla yónni jibril na ko neen ahmadu xoolal xol bi sëñ Mahamad Lamine Diouf daga andi na ko xoolal xol bi bu nee usma alak ko metti na képp wala mu ganji wala mu yëg ne li ko jam metti na mu alak nee na bi jibril di ñëw istirjaax laa def ñett la fekk sama xol as sabru wa shukru wa rida sant gërëm muñ ñetti ñetti guddi ñaari guddi yoo xam ne lekkul naanu lu ma ci layre boromam lu dul alxuraan dimbale woo ko fa mu ne ci pokusam bu xat boobu dem ba dellu siwaat jamono ñëw tey ñu daggal koy hectare juróomi sooroor sol jolli ab sëtam ñëw di xalifa ñu wàññi milliard teg ci kanamam moo tax yoon wi ku ko jàppee dellu gannaaw xalisan kañ lay doon li suñu social yi doo xam ne bu dee amit du la fekk moo tax ilaa si waa yente day ru zaman yëguma kiris Sëñ Tuubaa ne ne jamonoy tar kon loolu misaal la te bi muy wax gis nga mu joxe misaal ci Daaru Salaam kasaalika Cheikh Mamadul moom mu nga xam ne moo joxe woonu almet moo jàngale yoonu joxe addiya ak jëf joxe addiya teg ceg almet kon bokkut ak ñi naan bàyyi leen sëriñ si ngeen di jox addiya ak sëriñ si ngeen di jox ñuy noos ak di ko wutee wataak waay waay waay waay ginnaaw ba seen maam di dem sa a toog te ci seen maam lañ la seddee ba nga mosu dara waaye waaye bàyyee leen seen daraja yeeg seen maqaamam ak seen cër bi bàyyee leen seenub cër nga gis jëf jooju ak melokaan ak taxawaay kon sunu royteef yii nañuy dellu ci ñoom waxtu wu nekk di leen roy di jël ci ñoom misaal di ko dund ku ne xamoon na Cheikh Mamadul Mamoun boo demee tey kër Serigne Fadilou fekk fa Cheikh Mahamadul Mamoun boo demee kër si Abdoul Ahad fekk fa Mouhamadul Mamoun mësta nungu yittey doomi sëñ Tuubaa tàbbi ci nopp sëñ Moodu Mamoun faju ko ca la ca nit mën a gis ci ab bët baa mën ko dégg ci nopp lam cay def te dee su ko gis dee su ko dégg moo raw te xam ngeen ne koo xam ne sëñ Tuubaa moo ne mbaa yàlla nañ ko muy sëñ Moodu Mamoun loola doyoon na sëkk ci cër waaye dafa mel ne da doon doog a tàmbali ci boo waree jëf mel ne laxasaayuwaat ci njabootu sëriñ ci jëf joo xam ne ku ne xam na ko ci jamono loolu nag mooy cosaan yamata delloo si kon bu nee waa kër sëriñ moor ñi ñi ngi taxaw bis di def bis bu sëñ Modou Mamoun mu daan taxawee loolu di ci jiitu te boo ko tuddee waa Daaru ak mën a seere ak murid saadixam mën a seere mën a ngeme addiyam mën a seere mën a jëfam ay bokkam koo ci tudd mu mën laa seere dox lu baax ak jëf lu baax ak jàppalewu nit ak dimbale leen loolu nit bu fi bàyyi koo jëf ju baax jooju day romb xàmmee kon nag loolu lépp lu ko yàlla di fay muy jëm ëllëg yàlla na ci seddi njaboot gi bañ jot ci seen wàll ginnaaw guddi na seen jàngkat ñëw na addiye rek laay sàkku ci sëñ Modou Mamoun Amar mi laa koy jox bopp nag lii ma fenni moom am na sama addiye bopp ji bokkul ñu ma laajal moom bii junni moom maa ko moom maa ko génneel sax bopp xam nga li tax ma di ko laaj sëñ Modou Mamoun dafa Amar dafa baax fi ne bu meloon neneen bokk ci ñiy contre gone yi waxtaan yi du ma ko faale yàlla xam na ko du ma ko faale damay pare taal sama oto bii dem ñibbi waaw waaye ku baax ku woyof sëñ Modou Mamoun Amar dimbale leen ma ngir sëñ Touba nag teral le ma ko sama way jura tey bañ dalee nekk ci yoon yi ba léegi ah sëñ Modou waxoon naa ko sëñ Fallou Ndiaye maa ngi la koy wax de noonu ne nii yéen nañ bëgg mel ndax yéen dey macha allah diine ji jëmu leen yoon yu jëmu leen bokk gi jëmu leen na ngeen nuy ñaanal rek ci seen barke moo tax maa ngi sàkku addiye ji nañ ma ko dajaleel ma siyaaree ko sëñ Mouhamadul Mamoun toogaay bi maa ngi koy lu baax Amar waaye maa ci jublu woon lii nag ndax léegi damay dégg gars naan yàgg-yàgg daanu daje moom xamoon naa ne bis dana ñëw moom ma am sansum nga toog may wax waaw xamoon naa danaa yàlla dana ma ko mas a sarax kon dimbali leen ma rek ñu dajaleel ma addiye ma jox ko sëñ Mouhamadul Mamoun nga ñaanal nu ci te ñaanal ci ñëpp nag ndax sunu sunu wayjur la sunu kilifa la euh, sëñ Abdou jërëjëf jàng mi baax na lool sëñ Mor Mor Mor Kumba nga wax wala Mor ah sëñ Moussa Mor na sëñ Mor fa waaye mooy tixit gi rek sañ Mor Kumba ak sëñ Mor mooy sañ-sañ bi ngeen am <laughs> sëñ Mor Waraxa ak sëñ Mor Kumba ak yéen ñëpp sëñ bii kon lii maa ko moom lii sama sama sama addiye ji lii ak ñaan la ci man waaw jërëjëf Amar jox leen ma addiye ji xam nga mag la te jataay bi te moom day gunge gone yi di leen ñaanal fu ñu daje mi ngi nii waaw góor lay wax góor góorlu leen waaw maa ngi leen di soññ maa ngi leen di ñaanal waaw andil ma jëlal ma lii sëñ Amidou joxe te wax dëgg yàlla gone yi jóg di nab nabi di daje ak ñoom di leen jéem a gelmatoo ko fenteeg gone yi duñ la faale yàlla xam na ko ndax yàlla da leen dimbale gone yi di neexuñu neexuñ dara de mag mun dajal nga leen contre dañuy xam doo sëñ Tuuba duñ la laajal addi duñ la faale waaw waaw sëñ Mamadou addi yéem a ngi ne waaw looloo tax ma def ko tey jii xamoon naan li gaa yi naan yàggam yàggam daanu daje daal amin barke borom Touba amin barke borom Touba waaw ah, jërëjëf jërëjëf kon nag sëñ Mame Balla jërëjëf amin barke Xaadim Rasul amin amin sëñ Ibrahima Guèye jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Omar jërëjëf Kanté tabaarakallah baal leen maaq yéen ñëpp jërëjëf jërëjëf sëriñ Gana kontaan nañ baax baax baax ci turu sëriñ Mouhamadou Guèye ak mboolem njaboot gi ni nga ko bëggee woon rek nga ko defee yàlla yàlla fay la àggale yéene gën laa dëgëra sàmm wax gi islaame na murite na waaye àgg na ci wàllu jamono kenn ku nekk yeega ko yeeg woo xam ni day fekk fu mu toll daw fan moom loolu day mel ni ñëpp sant na ci baax a baax a baax sëñ mu daal nee na la sa bisa googu daal yéen a bokk Baye Mor yéen a bokk Sëriñ Touba ne yàlla gën laa taxaw sàmm la sëñ Abou moom bis bi moo ni gànn dama lay bégee dama lay bàyyi xel